professeur Mamadou Diarra bi mi nga xam ne mooy directeur SAMU national daat nay wax ne variant omicron bi nekkul variant boo xam ne maanaam bu soxor la waaye li am ba desal nga xam ne moo jëm ci wàllum vaccination bi loolee nañu ko respecté nañu wàccoo ak moom ba tey ci journal bi professeur Moussa Seydi daat nay wax ne lenn kese moo mën a dimbale askan wi ci variant omicron bi maanaam ñëpp dem ña ko jee bu dee professeur Tandaxa moom daat nay wax ne ñetteelu dose maanaam war nañu ko a jël professeur Mbu la yokkee limama nee na en tout cas li am ba des àll gars yi ñu jël suñu matukaay ndax coronavirus bi ma yokk ci réewum Sénégal waaye nag ñi nga xam ne ñoo ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi ku wax ba pare jox sa morom waaye kàddu yëpp boo ko tënkee mooy askan wi dem leen ñàkku ji yéen a kaay gi de la ñu xibaar naan ñu Air Sénégal ni ki démb dalool nañu neuvième avion ba tey ci journal bi de Le Quotidien nee na Ibrahima Kane ndax Macky Sall la nga xam ne moo ko naqari ak la ko metti bokk ci client yi nga xam ne maanaam ñooy jël Air Sénégal ba pare boole ko njàmbat loo xam ne dina dakk ndax ñu bari nee nañu seeni bagage dañu koy sàcc ak nag li nga xam ne mooy vol yi dafay retard loolee la Macky Sall munta dégg ak ñàkku qualité gi nga xam ne yenn ci client wax nañu ko journal lu ma jàmbal jaañ bi nee na lii nga xam ne client yi moom la ñuy jàmbat loolee moo metti njiitu réew mi Sall moo tax niki démb daan nay jubbanti bu baax a baax Ibrahima Kane mi nga xam ne mooy directeur général bu Air Sénégal nee na ko loo xam ne munta ñàkk maanaam lépp loo xam ne jëm na ci wàllum qualité de service bi ak wàllum sécurité bi wàllum organisation bi ak communication bi loolee munta ñàkk te bëgg naa ñu lijjanti ko ba mu ne cook journal bi di réew mi quotidien xëy nag wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Bougane Gueye Dany mi nga xam ne bëggoon naa nekk maire bu Ndakaaru kookee dafay xaar ndax Cour suprême daan nay gàntal gëm sa bopp ci diwaanu Ndakaaru ba tey journal bi nee na du gëm sa bopp rek la Cour suprême daal di gàntal waaye nag yeewi askan wi ca diwaanu Kédougou dañu ko gàntal ville bu Pikine tamit dañu ko gàntal journal bi nee na préfet yi defoon nañ lu toll ci fukk ci ay recours recours yooyu nga xam ne préfet yi defoon nañu ko cour suprême nangul na leen juróom-ñett yee daal di leen di lànkal ñaar yi journal bi nee na coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag nee na ñoom mbir mi duñu ko bàyyi mu sedd danañu dem ca CEDEAO journal bi jëlee ko ñu xëy fekk fa Moustapha Guirassy mi nga xam ne daan nañuy annulé liste Yewwi Askan Wi ca diwaanu Kédougou daan nay mer loola nee na am na lu ko naqari loola am na mettal ci mbir mi ba tey ci journal di Walf Fadjri xëy ca diwaanu Matam ma Cour suprême daan na koy dëggal maanaam da leen koo daal di nangul yéene kaay gi di l'info xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ni ki démb ma ngi woon ca diwaanu Ziguinchor ngir nag daal di wax programme bi nga xam ne nam na ko amale ci ville bu Ziguinchor boobee Ousmane Sonko daat nay woon ak ñi nga xam ne ñooy ay adversaire ama ngir nag ab débat d'idée ndax nee na leen 2019 woowoon na Macky Sall ci ab débat d'idée Macky Sall yéen ñi ñëw ñu def ab débat boo xam ne askan wi dañuy seetaan kenn ku nekk wax li xam moom nga mébét ci diiwaanu Ziguinchor kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Abdoul mbay mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal yakk na musiba ak mbelengaana njiitu réew mi di président Macky Sall Abdoul Mbaye nee na jamono ci Sénégalais yi sonn nañ ba maara day tali njëgi yokk nañ Abdoul Mbaye nee na Macky Sall yërëmal askan wi yéenekaay gii di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Mariama Sarr mi nga xam ne mooy maire bu Kaolack jamono ji nag maanaam défier na Macky Sall moom Mariama Sarr nee na nag Serigne Mboup maanaam lay jàppale ànd naaw gi du xëy duñu xibara naan lu jëm ci adresse à la nation njiitu mi di Macky Sall bëri na loo xam ne da koo daal di soppi ndax da doon jàkkaarloo ak presse bi bu defee déclaration ba pare loolee Macky Sall ren jii du ko def maanaam ci déclaration bi tamit du wax ci lu jëm ci wàllum poste premier ministre du wax ci union africaine du wax ci ñetteelu mandat bi ginnaaw élection locale la ciy wax ma wax li nekk ci yéen kay gi de la témoin ki nga xam ne mooy chef protocole bi di Cheikh Tidiane Sall daal ma Mamadou Ndiaye du Ndiaye moo nekk chef du protocole jamono ji journal bi nee na nag gars yi ñoo ngi wax lu jëm ci wàllum passeport diplomatique yi moo tax ñu daal di dàq Cheikh Tidiane Sall journal bi di Vox Populi nee na Cheikh Tidiane Sall moomu moo fa wuutu woon Bruno jaata ba mu ko fa wuutoo ak léegi ñetti at kepp la yéen gi di Source A ak Libération xëy ñu yóbbu ñu ca diwaanu Ouest Foire foofee nag musiba a kumba moo fa am dafa am benn jigéen benn soxna boo xam ne moo faray borom këram ak kuur la jël dóor ko ko ba xolam sedd yéen kaay gi nee na li garaaw ci mbir mi soxna soosu nag bi mu defee njombe géey ka giraawaali gi ba pare dafa wax gendarmerie na leen ay samba booy ñoo duggoon ci kër gi ñoo ko rey waaye nag gars yi bi ñu ko enquêté jàpp ko loxo ci poos daan na nangu mbir mi yéene kaay gi nee na Fatima Faty la tudd ki mu rey di Omar Gueye moo nekkoon borom këram am nañu ñaari doom yéene kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Gaston Mbengue mi nga xam ne moo tëgg combat Balla Gaye numéro 2 ak B52 Gaston Mbengue nee na nag lu jëm ci wàllum sécurité gi na ñëpp seen xel dal ndax lu toll ci junni ci ay policier dinañu